rahmatullah chers fidèles internautes Saloum Actu TV ñu ngi leen di ziyaara di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm yéen ñi saxoo di ñu seetaan ci seen seen leader Saloum Actu TV mbokk yi tey nag dañu dellu si waat ci seen émission bi nga xamante ne mooy kaa tudd yàlla su ñu ne kaa tudd yàlla nag dañ ciy dalal ay kàngam yu màgg yu ràññeeliku ci wàll sikkar tey nag ñu toog koo xamante ne kenn dootu ko présenté muy Baye njaga Dramé ñu naan ko Ndiaga Zakir waaye ginnaaw biñ ko ziyaaree dinañ ziyaare ki nga xamante ne ñoom nañu àndal ci bës bi ba mu yemb muy waa groupe ISO interbusiness comme ni ma koy waxee saay su ne rek képp koo xamante ne da nga bëgg def formation garde rapproché wala gardiennage wala escorte convoi waxu sil fi ci diwanu Kër Massar seen numéro mu ngi non ci baaru écran bi su ko défé rek bay ziar nañ la yak ñi nga andal ñu bay la nga ziar ñi nga xamantene ñu ngi lay seetaan. assalamu alaykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokki bi Cheikh ibrahim ñi ngi ni ñëpp. mboolam fu waaye mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di nuyu Seyda Mamy di nuyu suma xarit sama soppe Cheikh Baye Thiam mi nga xam ne moo ne sama wet maa ngi nuyu taalibe Baye yëpp mboolem ku ñuy seetaan ñu ngi nuyu salaamaaleykum wa macha allah Baye Ndiaga ginnaaw bi ñu la ziyaaree rek euh, émission bi kaa ñu tudd yàlla la suñu ne kaa ñu tudd yàlla géewu sikar lay doon euh, ban sikar ngay nuyoo askan wi nga xam ne ñu ngi lay seetaan.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 مقداره العظيم نالت تجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها قطب بالكرامات نالت تجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها قطب من كرامات نالت تجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها قطب بالكرامات نالت تجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها قطوب من كرامات لهيس الفخر ازداد بسيدنا قطب القطوب فريدا في المقامات لا التجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي قدم الولاية السلطان ولاياتي باب الولاية مفتاق الولايات لا التجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي قدم الولاية السلطان ولاياتي باب للولاية مفتاق الولايات لا التجاني أبو العباس الناس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي لذا كهمت كراما من مودتي تقتضني سفراتي كل أوقاتي قال أبو يعني العباس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي أحسنت بتغري أن سيقي يحملني ما أندك كانوا قرين كالقبارات قال أبو العباس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي خليفة الله رمس الكون روح جميل الخلق هو أصل للوجودات على يعني أبو العباس آياتي خفاز منها كتب من كراماتي مبارق البرق مريد رهودي وممتر المسون ومن قاس البريات على يعني أبو العباس آياتي خفاز منها كتب من كراماتي تلك المقارم لا خخبان من لبد تلك الوراثة من آل الهرمات تجاني يعني أبو العباس آياتي خفاز منها كتب من كراماتي هذا ابن فاطمة فرق نبوتي هذا أحمد قدم مختير المقاماتي لا تجاني يعني أبو العباس آياتي خفاز منها كتب من كراماتي هذا الذي منه أرجو كل عينتي نيل فتوي وتسيل المراماتي لا تجاني يعني أبو العباس آياتي خفاز منها كتب من كراماتي أزكى وتسليما على سرد وآل وشغب شغوب للقنيقات نالت تجان أبو العباس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي أزكى صلاة وتسليما على سرد وآل وشغب شغوب للقنيقات نالت تجان أبو العباس آياتي قد فاز منها كتب من كراماتي الله لا إله إلا الله la I da, da, da, da, da. da da da وبتسبيب سيح تجاني حسبيبي وبتسبيب سيق تجاني حسبيبي وبتسبيب سيح تجاني حسبيبي باري رهوب حسبيبي وكباني حسبيبي وبتسبيب تجاني قلبي له ومرامي وقال بي كلانيا حبيبي وبداه بي بشيء تجاني لا تصمت رأهادي ولا في جناني حبيبي وبداه بي بشيء تجاني فالفؤاد بكثر ولا تزره كبانيا حبيبي وبتحبيبي شيخ تجاني والتعصف لي كل سكوى والتعدي على الأمانية حبيبي وبتحبيبي شيخ تجاني بجاه خير البرايا وجاه طريق تجانية حبيبي وبتحبيب شيخ تجاني وجاه سيقي وأصلي وليدي على المانية حبيبي وبتحبيب سيهتي جاني اما دنيا وذاتي منتديانيا حبيبي وبتا في بشاهتي جاني فلا سؤال سواهي قائل لي على المانيا حبيبي وبتا في بشاهتي جاني هتيف العبد المنادي خلفكم قد كفاني حبيبي وبتسبيب شاهديا أسكي سلامي سلام على ظهير من جناني حبيبي وبتسبيب شاهديا من بعد كل سياب بعد لي كلاني حبيبي وبطاعت بي بزيقة جانيها macha allah Baye Ndiaga neex na lool ñu ngi kontaan ñu ngi bég waaye rek ci zikar soosu nga yëkkati nañuy ziyaare mboolem koo xam ne mu ngi ci tarixa tijaan rawatina waa pey bi mboolem ku nekk ci pey Mawlana Cheikh Ibrahim rek ñu ngi lay jox suñu loxo di la nuyu di la ñaanal jàmm di ñaanal xalif bi yàlla yàggal ko fi lool mook porte parole am Cheikh Mahi yàlla yàggal leen fi lool di nuyu imaamul akbar ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp mbokk yi di fàttali rek tey ñu ngi fii ci eh, diwaanu fi nga xamante ne ñu ngi koy wax Malika robine ñu dalal ci kàngam bu mag ku kenn dootul présenté muy Baye Ndiaga Zakir bay Ndiaga tey bu ñu lay laaj eh, ci sa carrière kañ nga tàmbalee zikar waaw Seyda Mami maa ngi lay ziara di la ndokkeel beneen yoon man sikar maa ngi ko jàngee Kaolack ay 2000 2006 ci laa tàmbalee di sikar daayira waaye sikar si nag nekkul loo xam ne dañ ko donn nekkul loo xamante ni maanaam ci suñu deret la bokk dañoo juddoo Kaolack yoroo foofu dégg nga ko gis tudd yàlla neex ñu dégg nga ko ñun laata ñu tarbee fekk ñu ngi yëngatu ci tuddiyaa waaye demet ñi ci góorgóorlu jigee ko Kaolack ñëw fii Dakar ñëw si suñu suñu sëriñ nekk ak moom mu tette ñu ak ki nga xamante ni tey du ma du ma maanaam du ma noppi di ko way di ko wax tey fu ñu mën di àgg ci tudd yàlla moom moo ñu fa yóbbu muy Cheikh Omar Lom bari tey képp ku ñu xam ci tudd yàlla moom nga ñu xamee mooy suñu bunt ci si kar moom lañuy ñuy roy ci bépp loo xam ne ay mëdët ay mëdëtam la lépp loo xam ne ay waari daatam la ci moom la ñuy goog ci moom la ñuy rootee ba tey ñu agsi fi ñu agsi ginnaaw loolu ñu ngi ndokkeel ñëpp di wax ne tudd yàlla nag moom nekkul loo xam ne dañ ko doon waaw dañoo ñëw yàlla dimbala ñu ak suñu sëriñ suñu bunt ci yàlla maa ngi koy nuyu mooy suma cheikh mara bi mooy Baye Moussa Dieng moo ma tarbiya nampatal ma ci tudd yàlla tey mun naa ne su ma demee may téye micro sax moom la ndax mbóot mu def ci man yëg naa ko xam naa ne moom moo ko def ci man ba tax may téye micro di si kar waaye nekkul loo xam ne dañ ko donn wala loo xam ne duñ roo duñ rootaani suñu waajur la mm. déedéet kon ñu ngi lay ndokkeel baax Seydou macha am na solo ñoo ko déggandoo nee na li nga xamante ne mooy tudd yàlla nekkul loo xamante ne daf ko doon waaye ndaw la goo xamante ne tàmbale na ko laataa sax muy tarbi mu am solo lool mu di ko def diwaanu Kaolack ba ñëw fii ci Dakar continuer ko kon mbokk yi kooku mooy bàyyi Ndiaga Zakir su ko defee rek dañuy dem ci beneen zikkar moom mooy xool ban zikkar la ñuy mayaar rek incha allah comme kaay ñu tudd yàlla nañu woote. waaw. عليكم من كل قال خن سلام دفع قلقي يا ديا عليكم من كل قال خن سلام دفع قلقي إلهي لليادي وعليكم من كل قال خن سلام دفع قلقي يا ديا عليكم من كل قال يقيم سلامه دبر خلق الله دول الليالي نوره أول الوجود الوجود فهو عدل الأصول والألجانية عليكم من كل خلق سلام دبر خلق الله دول الليالي لم يستطيع إلهي في انتقالي في الكون بعد انتقالي عليكم من كل قلب سلام دور قلبي إلهي طول الليالي ثم تعالى وتجلى نوره في عبد الإله إذ غاليا عليكم من كل قلب لكن سلامه بما خلق الله طول الليالي عاسقة النساء يا صنع نجله من حبل البهاء والجمال عليكم من كل خلق سلام ديرا خلق الله طول الليالي على هم الهرام فالموت أولاد من حرام مقال آذر كماليا عليكم من كل خلق سلام دبر خلق الله طول حتى فالله وخله الله وأني عن لها بذاك الوذاليا عليكم من كل خلق سلام يورا خلقي الله طول الليالي كم هترها سايرو وياهم لا ني رسول يلون لهذا المال عليكم من كل خلق سلام يورا خلقي الله طول الليالي هنا في أني أسوى قبر سارة نتواءت له مفادلا ليا عليكم من كل خلق سلام دورا خلق الله تولى وبدا دورة اليتيم الغيبة غزنا حد يتني في الرقاء الباليا عليكم من كل خلق سلام دبر خلق الله طول الليالي ودها في دارين يوسف بيا رجمي وشعب قول جل رجاليا عليكم من كل خلق عليهم سلام ربي وقلبي الله دون الليالي قواي في دار بردان فترقور بغدة بتواليا عليكم من كل خلق سلام ديوا خلق الله دول واترى وأترها هم وهزا ثم آتيتنا تنلاليا وعليكم من كل خلق سلام ديوا خلق يبكي الله طول الليالي وأترى أملاك ثم تدلى نور كل نجوم للمفدال عليكم من كل خلق سلام ديورا خلقي إلا يدول الليالي نور شمس تبات سقات إن سمزا مصطفى زلت أمدا مدى الله لي عليكم من كل خلق سلام ديورا خلقي إلا يدول الليالي مرحبا كل مرحب بالمقفى مرحبا بجود الشقي مفداليا عليكم من كل خلق سلام لما خلقي لا يتوب للياليا macha allah macha allah neex na lool ñu ngi nuyu mboolem ko xam ne rek mu ngi ci diwaanu Kër Massar rawatina waa cercle des jeunes talibé Baye Niass Kër Massar ziar nañ leen bu baax ndax njagam mii di zikkar kenn la ci ñoom ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi taxawal faydu fii nii ci diwaan bi lu ko dalee Kër Masaar jàpp Dakar yëpp ñu ngi leen di ñaanal di ñaan yàlla dëgëral leen bu baax waaye Baye Ndiaga ba tey rek ñuy waxtaan ci li nga xamante ne mooy sa jaar-jaar ñu gis ne métier yëpp mu ngi fi nga métier woo tudd yàlla lan moo waral loolu wala lan la la bay Niass defal ba tax nga jaay lépp na yow da ngay doon géwél. waaw Seyda ndaw lañ yoo xam ne yàlla rek lañ bëgg. tey suñu armalee jublu tudd yàlla dëgg-dëgg loolu sontuwuñ ci lenn lu ngërmaani Cheikh Ibrahima utuñ ci lenn lu ngërmaani Cheikh utuñ ci tur atuñ ci daraja ñun suñ dund gi dañu fas yéenaa liggéeyal bàyyi si loolu sama sëriñ sax yàgg na ma koy séedee ndax mu ne njaga moom suñ koy suñ koy ñaanal wala suñ koy eh, encouragé nañ ko encouragé si tudd yàlla ndax tudd yàlla daf ko jaral lu nekk hmm. man tudd yàlla daf ma jaral lu nekk ndaw laa boo xam ne dégg nga sama dund gi lépp dama ko jaay ngir tudd yàlla waaw utuma ci dara nag tudd yàlla moom laa bëgg moom laay moom laay noyee dégg nga ko ñu ma dëkkal sax danga xam ne kii tudd yàlla rek mooy mooy kii ndax danaa leen tànqal ci tudd yàlla laa ilaaha illallaah fu ma toll moo xam ma nekk su ma nekk moo xam may tëdd moom laay moom laay yeewoo moom laay fanaane dëgg-dëgg loolu nag bu ñu ko amee bàyyi moo ko def si ndax man bi may gëstu tudd yàlla maanaam ci géewu bàyyi boobu tarbiyaagum ki ñu wax Cheikh Ali Diané Zakir moo tax ma gën a maanaam topp tudd yàlla ndax bu ma dem liggéey ñëw wàcc tàgg suma yaay ne ko maa ngi dem wasi fa su ma demee wasi su ma dégg jotaay bi ma njëkk a dégg ñuy tudd yàlla Ali Diané laa fekk muy zikar la la ilaha illallah affaire bi garaaw li may def. mu garaaw torop ci man. ma ne waa ji ni muy tuddee yàlla. Euh, te du noyyi man lu ma gën gënoon jaaxal mooy laa ilaaha illallaah bi ngay xëcc te doo noyyi noonu la ko nu ko nit di defee su ma ko jéemee ma fatt ma ne ma ne lii am na secret bu ñu ne loolu bokk na ci li tax ba gën a nekk tuddkat yàlla ma ne man mi lii danaa ko dinaa ko jàng ji ndax ni muy xëccee laa ilaaha illallaah bi am na mbóot bu ñu ne daal mbóot boobu laa doon topp na hmm. moom indi fii tey moom indi Dakar dëgg-dëgg mu nekk leex ci man nekk fierté maa ngi koy wax suñu suñu waagar sax xam nañ loolu ci man waaw ñu ma dëkkal sax xam nañ loolu su ma toogee sa gëj a jotaay gëj fi am dañ may wax ne waa ah, affaire yi moom gëj naa am de kan lay loolu nag li ma ko may Baye la mboolem ku ma xam rek Baye Niass la mboolem teraanga bu mu mën di am ci tudd yàlla laa ko amee waaw loolu nag sant yàlla la maa ngi koy gërëmee Baye Niass di ko gërëmee suma bunt ci yàlla di ko gër suma xarit yi képp koo xam ne jàppal na suma fan sama groupe WhatsApp soppee Baye Ndiaga Zakir ak waa cercle de jeunes Talib Baye ñoom it jàpp nañ ci ndax tey Kër Massar su ma fi yaatoo ñoom ñu ndax jotaay bu ñu mën de am nañ naan Baye Ndiaga moom moo koy jiite dëgg-dëgg loolu maanaam loolu sant naa ci yàlla bu baax a baax ndax tuddkat yàlla yi bëri nañ Kër Massar waaye kenn mënut a wax te tuddoo Baye Ndiaga loolu nag seen baax la ak seen yëg-yëg bi ñu am ci man ak topp gi ñu topp Cheikh Ibrahima moo leen moo leen waral loolu waaye du man xale bu ndaw laa ñu ma dàq tudd yàlla ñoo fi nekk Kër Massar loolu la góorgóorlu maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm yéen it bu baax di gërëm suma soppe Cheikh Baye Thiam dinañ ko jox ci kanam mooy nu mas ndax mooy suma waay la suma xarit la ku mën li muy def la sama royuwaay la dama koy roy ci tudd yàlla ci jikko ju rafet ci mandarga yi wëlliwu yàlla bépp looy xool ci wëlliwu yàlla rek soo xoolee ci moom di ko gis waaw ànd nañ bokk dëkk bokk nañ tukki dégg nga ko ci ay dëkk yu façon yu fasanti ko ñii nii nii nii ko gannaaw suba dañoo war a dem bari saa tool yaa ngi dégg demuñ fa leen lu tudd yàlla dëgg dëgg loolu ñu ci sant bu baax daal waaw allah tudd yàlla rek moo wóor comme ni mu ko waxee moo taxit euh, waa Saloum Actu kaa ñu tudd yàlla nañu woote su ko defee rek dañuy dem ci suñu soppe bi mu zikaral ñu moom tamit euh, Cheikh Baye Cheikh Baye Thiam. Cheikh Baye Thiam. هو الهب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأحمد خير العالمين وشاكرا هو الهب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأحمد خير العالمين وشاكرا فمن كان ينحو للمدينة ظاهرا سواه فإني جئت أحمد يا دائرا يا لأحمد خير الآن وذاكرا له المسجد الأعلى فطاح مصيده وأقطعه روض الجنان مجاورا وله إبراهيم قد جاء خيرا لأغمد خير الآلمين وساكرا نين يذكرني دهرا مدى ونبينا يروه ويغدو يوم لقل وحي ذاكرا آه ويبيت ينادي ربه ونهاره يعاثرنا يهدي إلى الدين ناظرا ولهب إبراهيم قد جاء ظائرا لأغمد خير الآلمين وذاكرا يبيت يناجي رابا ونهارا يعاصرنا يهدي إلى الحق ناظرا يا ذائر يا نعمد غير يعني عان لمين وذاكرا فآزاره الدلال عليه تبصرا بمكة أمر لها سمي الظهر ظاهرا وليب إبراهيم قد جاء ظاهرا خير العالمين وزاكرا آذاه عليه تبصرا بمكة أمر الهاسم ظهر ظائرا آه. وطيبتنا ذاك بدر وكندق وذا أهد تنسيك بدوا وحاضرا ولي إبراهيم قد جاء ذائرا على خير العالمين وساكرا وبرهام يأتي ظاهرا متوصلا يا ومستصفعا أرجوك في القبر حاضرا إبراهيم قد جاء لأغمر خير العالمين وذاكرا وكن لي رفيعا يوم زاغت وأزعند وجوه وأبصار ترى الكل حائرا ولهب إبراهيم قد جاء ظائرا أغمر خير العالمين وساكرا بني وقد ذهب ولدان وقاف مؤمن وقد بلغت كل الله قلوب حناجر وكل بريء قال نفسي وقد جرى جميع فلا تلفي هناك أكابرا والهب إبراهيم قد جاء لأحمد خير العالمين وساكرا ولا ملكا إلا الإله وسابعا سوى المصطفى المختار بدءا وآخرا والهب إبراهيم قد جاء دائرا خير العالمين وساكرا بل ولا ملكا إلا الإله وصافي الناس والمصطفى المختار بطئا وآخرا آه فمعتمد يقن عطاء محمد وهل يتحداني الزمان مكابرا وليب إبراهيم قد جاز لأحمد خير العالمين وشاكرا لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي صبعت والحق أبدى الثرائرا والهب إبراهيم قد جاء خير العالمين وساكرا رضا الله وعن شيقي وأصلي ومرصدي وعلى دينا إلى الدين ناظرا ولي إبراهيم قد جاء ظائرا لأغمد خير العالمين وساكرا بين رضا الله عن شيقي وأصلي ومفقدي وقد عصى يهدينا إلى الدين معذرا آه. بقسو وتعليم وحج وهجرة وعاص سكورا وقد عاص صابرا وليب إبراهيم قد جاء لأخمر غير العالمين وساكرا عليك صلاة الله ثم سلامه أطيتك برا ثم بحرا وطائرا وليب إبراهيم قد جاء لأغمر خير الآلمين وساكر لنفسي وأولادي وصحبي وأسرتي فأضحف لنا رضوان بطنا وظاهرا ولهب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأغمر خير الآلمين وساكر بين عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأزواج ومن كان عاصرا هو الهب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا وليب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا ما شاء الله cheikh bi yëngal nga saal bi yëngal nga plateau bi lool lool lool yal na yàlla wël seen baat wax dëgg fa yàlla zikar si neex na lool waaye rek di fàttali mbokk yi ne yéen a ngi seen émission kaay ñu tudd yàlla ànd seeg euh, Baye njaga Dramé et son groupe su ko defee rek mbokk yi euh, Baye Ndiaga àdduna yëpp ñu ngi lay seetaan ban zikar ngay may sa soppe yi mboolem koo xam ne rek mu ngi lay bëggee yow Baye Ndiaga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha إلا الله أحمد الغماء والكرباء وزبط في سكرى وسوق واللباء فإن رسول الله أمسي وراهتي وروحي وريحاني متى أغرق الله وجبا محمد محمود وأحمد آمدنا عليه صلاة الله ما تقر القلب تأقر بعد رسلي وهو مقدمنا فديد بديد حي يرى الحق ولا لبا ويمرني ذكراه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 laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha الختان فتنرام فصل الوصل أو حاول البتة فإن رسول الله أنسي وراحتي وروحي وريحان متى أغرق الحجبا قد استوجب السنارة والعهد والمختان فقد رام فصل الوصل أو حاول البتا وإني موصول وأحمد عائد إلي قبيل الكون والكون ما ستا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب نعم مر الوقت والبيت لا إلا لا لا لا إلا لا إلا لا لا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 برهم وصلى الله برهم ذات برهم على أصل الأصول من بني أرمان برام كولانا إله إلا الله لا إله سيقي أنا أهل الأصول منا بني أرنان بلا مكولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولوف الخلق مخلوفنا صبير الله برهما ولوف الخلق مخلوفنا صبير الله برهما لأنت القصن من كل ما هو فلقات برا مكولا لا إله إلا الله لا إله سيقي بايلا أنت القصن من كل ما هو القاضي ما مكالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قصاء منك جاياك قياس الخلق برهم قصاء منك جاياك قياس الخلق برهم إله الخلق أتاك ثمام الكون برامك لا إله إلا الله لا إله سيقي باي إله الخلق أتاك ثمام الكون برامك لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت كل جراك سوى ذلك برما جميل الجابر الكسري لمن وافاك برامك لا إله إلا الله لا دائد سيقي باي جميل الجابر الكسري لمن وافاك برام قولا دائد إلا الله دائد إلا الله لقد خوتيك كن فيكنا فضل الله برما لقد خوتيك كن فيكنا فضل الله برما حبيب الحق بوابه ولوج الكل برام قولا دائد إلا الله دائد سيقي باي أبيب الحق بوابه ولوج الكل برا مكانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمام القلب في آهات يهيم فيه جبروت لا كذا الملكوت بلا مكالا لا إله إلا الله لا إله سيقي ما يهيم فيه جبروت لا كذا الملكوت بلا مكالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أنت الكون بنافاتي تسر لا إبر أما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 waaw waaw la ilaha illallah ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah barhamu barhamu ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah barhamu barhamu ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah waaw waaw إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله مرحم ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا sifati zati bay barama bay barama dañ lay way bade dee bay barama dañ koy way bade dee bay barama dañ lay way bade dee bay bay barama dañ lay way bade dee bay barama dañ lay way bade dee bay barama dañ lay way ba dee barahama dañ koy way ba dee barahama bay barahama dañ lay way ba dee barahama tey barahama dañ koy way ba dee barahama tey suñu góor gi jar nga way ba dee barahama Cheikh Ibra Fall dañ lay way ba dee barahama Cheikh Ibra Fall jar nga way ba dee barahama Cheikh Ibra Fall dañ lay way ba dee barahama Cheikh Ibra Fall jar nga way ba dee Muxtaar jar nga Baay Moussa Dieng dañ way ba Baay Moussa Dieng jar way ba dee. Saala Baay dañ way ba Baay bakk leen Baay. tey baay bakk leen ko maam baay tey baay bakk leen ko maam baay tey baay bakk leen ko maam ko maam baay bay barama tudd yàlla nañ tudd yàlla nañ bay barama yawmal xiyaam nii lay demee dañuy sikkar bay di jaayo nañ tudd yàlla nañ tudd yàlla nañ tudd yàlla bay barama bay barama bay barama bay barama bay barama barama bay barama bay barama bay bëgg nañ la tay bëgg nañ la bay barama tay bëgg nañ la bëgg nañ la bay barama bay sëriñ bu mar sëriñ nii lay mel sëriñ bu mar sëriñ nii lay mel la ilaha illallah allah allah la ilaha illallah la ilaha إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله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 الله الله لا لا إله واخلو محتوم مدارانية الله الله الله الله لا إله والملاهي والمقامي لا إله الله الله لا إله من كرامين أما بني لا إله الله الله بك سراب لا إله إلا الله وابقي الله أهل لا إله لا لا لا لا لا إله هاي هاي أقوى أقل لا إله لا لا لا لا لا إله تالي المثاني لا إله لا لا لا لا لا إله إلا الله الله الله إلا الله الله الله إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله كندو مامباي لا إله إلا الله جرجف باي لا إله إلا الله جرجف باي لا إله إلا الله جرجف باي لا إله jërëjëfe baay jërëjëfe baay barahama jërëjëfe baay jërëjëfe baay barahama jërëjëfe baay jërëjëfe baay barahama allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah macha allah mbokk yi waaye rek naka heure bi xoj nañu ñu ngi ziyaara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di fàttaliwaat rek suñu sponsor muy groupe ISO interbusiness wax naa leen ne école de formation la boo xam ne daf lay forme ci formation bu mucc ayib jox la sa lijaasa jox la sa carte professionnelle nga liggéeyee fu la neex bu bu leen sori diwaanu Kër Massar la numéro baa ngi noonu ci baaru écran yi waaye rek di ziar sama jinne caméraman bi may Maysa maa ngi koy ziar ak assistantam Zeyda Khoudia ziara tamit euh, waa groupe ISO inter business ñëpp rawatina waa Saalum Actu Kaolack Mbour euh, Dakar ñu ngi ziar ñëpp bàyyiwuñu kenn di ziara mboolem koo xamante ne rek jàppale nañu wala mu dooleel ñu ba ñu toog fii tey di ziara sama yaay bu baax. diko ko ñaanal gudd fan wér gi yaram naka noonu tamit di ziyaare ki nga xamante ne mooy sama buntu ci yàlla muy Cheikh Habib Diop Soufarnac maa ngi koy ziyaar di ziyaare Fallou Baye di ziyaare mboolem njabootu Cheikh Ould Khayri at mboolem njabootu rek Maulana Cheikh Ibrahim bàyyiwuñu kenn su ko defee rek Baye njaga dañ lay bàyyi nga tàggatoog ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan nga joxaale ñi nga xamante ne yaa ngi féggoog ñoom ñu nuyu ñi ñu bëgg a nuyu tàggatoo nga yëkkati zikkat ñu tëj jotaay bi. <coughs> waaw macha allah. Seyda Koudia ñu ngi lay ndokkeel bu baax kii kon seydaa mayu Barham ñu ngi lay ndokkeel bu baax di kontaan si seen teewaay di leen ñaanal yàlla fépp foo xam ne rek bëgg ngeen seen télé bi àgg fa yàlla na yàlla àggale ko foofu. dem ba Kër Masar waxuma la Kër Masar waaye àdduna bi yëpp di ko suivre ci barke Baye ndax amul si gën a liggéeyal Baye moom kenn xamul fan lay fu muy fu muy tàmbali waayam mun ko tàmbali waaye xamoo fu mu yem te li ngeen di def nii liggéey Cheikh Ibrahima dégg nga ko di tasaare faydu loolu la bàyyi nekkoon kon yéen su ngeen ci nekkee rek nga jàpp leen ne liggéey li ngeen lu gën a fort ci loolu ngeen ne rawatina ngeen di wër ci jaamu xeeb yi nga xam ne dama mënuñ dara ngeen di leen siiwal di leen wane loolu sant yàlla ñu ngi leen ci ñaar yàlla bu baax bépp jéegu bi ngeen jéegu ba ñëw fi yàlla nekk yiw yàlla doon yokkute yàlla doon gudd fan yàlla doon xéewal ci mboolem ñi nga àndal mboolem waa ñi ngay liggéeyal ak mboolem waa koñ bi rawatina kër gi rawatina sama mbokk taalib yi maa ngi kontaan bu baax di jaajëfal ñëpp wax ne maa ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel sama xarit Cheikh Baye Thiam mu ne sama wet di ko wax ne kontaan naa bu baax ci taaw bi rafet na ak suma rakk Baye Maas ak suma mbokk taalibe Cheikh Pape maa ngi leen di ndokkeel bu baax di ndokkeel ñii seetaan ñu ngi leen ndokkee leen ñëpp Seyda Khoudia ak caméraman jinne caméraman ñu ngi lay ndokkee bu baax yéen macha allah di jégalu bu baax yaram bi jagadi moo waral si kër mel nii waaye amoon nañ éene dégg nga ko mu gën a neex xam naa nag si kër si moom neexul. waaye daal lépp lépp daal dañ doon jéem rek waaw dañ doon jéem ñu ngi kontaan bu baax di leen jaajëfal di xanaa rek di jox Cheikh Baye mooy mu tàggatoo waaw bu ko defee suñ paree ñu soo ko tëjee si kër والحمد لله رب العالمين آه، الحمد لله نيجي سنتي الله بباخ دينيو دي نيو آه سنو غن يتاي غن لين واي نيوم دم اي غن لين كون نياري غن نيو داجي تاي فيوم صلى الله عليه وسلم دفع خواني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كيف بقو خوانتني غم غيالا gëm nga àllaaxira na nga teral sa gan te yaakaar naa gën ji teraanga mooy baatu laa ilaha illallah yéen sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa ilaha illallah xisni man qaalaha daxala xisni man daxala xisni amina min azabi mu ne laa ilaha illallah mooy sama tata tata mooy li lay protéger bu xare amee ba kenn du la mun a lor fala foofu duggee da ngay mucc mu ne laa ilaha illallah mooy suma tata man yàlla <coughs> képp ku ko wax dugal naa la suma biir tata te képp ku xamal xamante dugg nga suma biir tata mucc nga sama mbugal te ku xam luy mbugali yàlla soo si muccee dinga sant yàlla bu baax baay radiallahu anhu wax na ne wa xayru jalisi man yuraddidu zikrahu uhibbu fatan yasdu bil amdaaxi laa laafiza bàyyi mu ne gën ji may toogaaleeg man ñi may fréquenté yëpp ki ma ci gën a faa ki ma ci gën a bëgg ki ma ci gën a naw mooy ki nga xamante toujours heure bu nekk rek mu ngi tudd yàlla di jooro am daax yi nga xamante ni ñu ngi ko tag yonte ma sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne man sax damaa faa jeune bu xamante ni foo ko fekk yes duubil am daax yi dafay dafay dafay dafay sadd ab yaa di comme ni ko bàyyi ndaga doon dafee léegi léegi léegi mu tijjee lu xam ne lu neex la mooy naa la tijaan yi abul abbaasi ayaati xat faaza minha qutubun bil karamaati nga xam ne Baye Niass dañuy faral di wax ne moom léppam banaana la commencement bi ba fin bi lépp moo neex bàyyi foo tibb ci moom rek dafay neex euh, waxtaanuñ mais tey jotaay bi yàlla moo ñu ci boole dama ñëwoon di seet sama xamat xarit tey Baye Ndiaga moo xamal ma ne yéen di ngeen fi ñëw tey kon ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu yàlla boole <coughs> si xaajara Cheikh Ibrahim Niass te Baay nee na <coughs> wala yaku xisru diini xaddu <coughs> muhibbina yow yàlla yal na bu def mukk xoolutu diina diina te buñ ko waxee rek mooy julli te lii luy meññetu julli yow doo si nekk xoolutu diina buñ ko waxee mooy ki xamante ni mu ngi julli ma te terewut koy jëw ki nga xamante ni mu ngi julli wax terewut koy dem jaalo ji yu bon yëpp bàyyiwut si si benn waaye nag mu ngi naan man jullit kon kooku noonu mooy xisru diini bàyyi mu ne nag ñi ànd ak man wala la ko xisru diini xasdu muhibbina loolu nekk seen cër lan mooy seen cër mu ne bali lubbu lubbu lubbi du ataaya mu ne buñ fegee diina ci iimaan ci islaam ci ihsaan ihsaan nag mooy nga dem ba am mushahada mooy janoog yàlla ah, ak sa bët yi ngay gis loolu mooy cëri samay taalibe kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ci bu ñu amee relation boobu noonu tey ah, di gërëm suñu xarit suñ soppee Euh, Mawlaaya Baye Ndiaga Dramé Zakir macha allah nit ku baax dama koy faral di wax lu bëri euh, Seydina Cheikh radiyallahu anhu dafa waxoon ne mu bëgg na taalibe bu koy jox am amam. mu ne ko ah bi ah, xanaa da nga xaalis ma sax ci xol ku koy jox ku nekk rek bëgg na la Baye Ndiaga nag xaalis dafut ko muy dara mbalil la ko def su ñëwee ci moom lu mu ko ku mu ko fekkee mu jox la ko. loolu nag may la bu ko yàlla may euh, tuddkat yàlla la boo xam ne bu bu suufee la. ku bëgg tudd yàlla la et ku ko man tamit la nit dina bëgg tudd yàlla te fekk du ko man nit dina bëgg tudd yàlla man tudd yàlla te fekk du nekk nit ku suufee nit gi dina man bëgg yàlla tudd yàlla suufee waaye boo dajeeg moom ci taabal yi géewi géewi zikra rek mu génne yeneen jukko dëgg dëgg loolu yëpp yàlla musal na ko si yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla aar ko ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax day xale yi itam toog xam ne ay xaleem leen euh, moom la ñuy àndal mu leen jàngal zikra bëri na wax léegi-léegi Seydi Seydi Lom moo ko moo ko formé Zigar dëgg dëgg Lom moo ko Zigar moo ko formé waaye moom tam jàmbaar la su bëggutoon Zigar du àgg fii nii ba bëgg Zigar rek di topp gars rek mais moom tam bëri nañu xamante ñu bëri si moom leen génne kon ñu ngi ñaanal seen euh, seen télé bi mu dem Saloum sa Saloum afti active mu dem ba nekk télé bu xamante ni bu nekk euh, général lay nekk nekk ci àdduna bi yëpp di ko xoolaan di ko bàyyi xel te bu ñu jàppee rek incha allahu ànd ak Baye ndax Baye international la boo gëstoo mboolem ñuy oote si àdduna bi bàyyi rek ngay fekk mu nekk daaya bu xamante ni da ngay xool ci biir mbooloom nga gis mboolem xeet yi nekk si yonentu rek la yàlla may si yonentu yi nga xool ci biir biir ooteem nga fekk mboolem xeet ci parce que yonentu bu nekk rek dafa yàlla daf ko daf ko ne andir xaw ma ka xaw ma ka dama la yónni mais nag sa sa ñoom laa la laa la yónni mais yonentu bi nag oma atanaak la kaafatan li nag yonentu mu ne yàlla mu ne ko dama laa yónni waaye si ñëpp laa la yónni kon bàyyi itam moom mooy waari sunna bi moo tax ooteem bi dafay ñuru ooto yonentu bi kon ne keneen ku dul moom rek amoo oote bi mu am kon ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax a baax di gërëm di sant seen utaal taalibe la bu xeebu xarit yi soppee bàyyi njaga xaritam ñu ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ba axiru daawaan alhamdulilahi rabbil alamina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 illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah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 الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله أن لا لا إله إلا الله أن لا لا إله إلا الله أن لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والقاتم لما سبقنا سراق يا قلبي إلى صراطك المستقيم ولا سؤالي حق قدري مقدار العظيم سؤال ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين